asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon ñu ngi nangu dogalub sunu borom bi mu wàccee ci sunu kaw te di ko gëram ndax yàlla moonu nu gën a xam sunu bopp te moo gën ci sunu bopp kon du ñu teg mukk lu teguwul du tegit mukk loo xam ne lor lay doon ci noon kon lu mu teg rek sant ci te gërëm ko ci moo war ki fi jógee nag wàcc na ndax ku xamoon li ko fi indi woon la te mosu koo dara te yàlla defal na ko loo xam ne doy na sëkk ci diggante jaam ak boromam ndax sëtu Sëñ Tuubaa la bu wér boo xam ne diirub li mu dund mu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeent dara sànkuwu ci. te liggéeyal na sëñ Tuubaa loo xam ne itam ku ne teg na ci batam foofu nag doy naa yam yàlla na ko yàlla gërëm te nangu ab liggéeyam te fay ko ko te barkeelal ko ko gannaaw loolu ñu ñëw ci sunu yaakaar ji nga xam ne yaakaari murit yëpp la mu mel ne doomi Serigne Touba li tax bi ñu fi nekkee. ku mas a dem ci ñoom rek du diis ni mu war a diisee ci murid yi li ko waraloon mooy saa yu kenn masaana dem boo xoolee kaneen la newoon ca kee rek mooy ne ca moom tax sa xel dal loola nag dalaat nañu ci diggante Cheikh Sidil Muxtaar mii ak Cheikh Muntaxa mi ndax ñëpp gëlëmoon nañ waaye ku gis sëñ Muntaxa mi taxam ko da xam ne sëñ Tuubaa fi nekk ba tey te sëñ Tuubaa rek a nekk ci moom mu yor pësteef bu kawe boo xam ne yaakaaruma ne fa mu ne ñun ñun taalibe yi xam nañ ko sax ba di ko fa mën a fekk kooku nag bu jiitee yoonu sëñ Tuubaa wi ba noppi doon li mu doon ci sëñ Tuubaa tamat ko sëkk xel yëpp war naa dal liñ ci war a teg rek mooy ñun ñëpp. mu de def sunu jom ak sunu yitte ci ñaanal ko sunu borom mi nga xam ne moomam lépp te soxlawu ci dara te ñaan ko rek ba ko fa mu baal na ko fi may ko ak wér ak kàttan ba yéene ji mu am ci liggéeyal sëñ mu def ci lu kawe sunu njort ñun ñëpp kawe njort ñun ñëpp itam sunu xel dal na ci moom lool sunu yaakaar dëggu na ci moom lool te wóor nañu ne bu fi nekkee dana liggéeyal sëñ lu kawe njottul ñëpp moom ci boppam mas na maa nettalil boppam ne ma mas naa dem ci sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou moom ba muy dem mu ne ko Muntaxa yàlla na nu yàlla tin ci yow yàlla na nu fi yàlla baal loolu nag dafa mel ne bisub tey bii rek a taxoon ñoom ñëpp doyloo woon nañ ko ñoom ñëpp yaakaar nañ ko bu tasee yaakaar yi murid yëpp nag yaakaar naa ne sëñ Tuubaa du ko tas mukk kon yàlla na yàlla dëggal yaakaar yëpp te yàggal ko fi lool te may ko ak wér. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah